mbokk yi ñu ngi leen di nuyu euh, di nuyu kenn ku nekk ci turam ak santam di nuyu kenn ku nekk ci dayo bi ko yàlla jox di nuyu ah ñi nga xam ne ñoom laa bokkal toog fii ci taabal ji muy Serigne Saliou Bousso di vice-président Fal Askan Wi jóge ba Mbacké ñu bokk ñun ñëpp di ko ziar ci kim doon di ko ziarit ci fa mu jógee euh, jóge màkka tollu ci guddi yi nga xam ne santaane nañu ñu ziar ko mu yore ñaan gi ah, loolu lu am solo la yaakaar naa ni tudd nañ ko fi léegi di nuyu suñu présidente di seen présidente di soxna Maimouna Dieng yaakaar naa ni ku xool jataay bi xam ne moom siggi na ndax euh, jataayu tey bi bokk na ci ñi ko gën a sooke ngir mu doon beneen tàmbali ndax tàmbali yi bi mooy ñetteel bi bi njëkk moo doon lancement bi bi ci topp mooy ubbite kër gi ñetteel bi mooy li ñu tàmbali joxe carte yi euh, waxoon naa leen nag ci ñaari jataay yu jiitu yépp ne leen bu ci yàlla àndee fal askan wi day dem te dara du ko téye ngir lan ngir fal askan wi dadul parti politique fal askan wi du coalition de parti politique te fal askan wi day politique fal askan wi dafa doon leneen lu gaañu miinul ndax nit ñi li ñu miin parti politique la nit ñi li ñu miin coalition de parti politique la nit ñi li ñu miin par parloo la nit ñi li ñu miin xuloo la li ñu miin werante la lu ñu miin xaxarante la te du lenn ci lool moo waral may ñaan ñi ma bokkal di taxawal mbir mi ñu am indulgence lool ba pare am patience lool ba pare am dal lool ndax yenn saa yi nit bu xamul mbir lu ne la koy jiiñ waaye dangay jàpp ne dafa xamul te bis bu demee ba xam te sa patience moo koy xamal sa dal moo koy xamal yàgg moo koy xamal bu boobaa moom ci boppam dina xamal boppam ne li mu doon jiiñ mbir mi du loolu euh, maanaam askan wi ci boppam dafa moom yëf yi ndax yàllaa ko ko jox ñépp xam nañ ni askan yàlla ci boppam moo ko jox mbir yi mbir yooyu tubaab souveraineté la koy tuddee wolof sañ-sañ la koy tuddee damay faral di fàttali ne constitution wu Sénégal ci article troit bi dafa am ponk bu ci am solo lool naam mën nanoo wax ne ponk yépp am nañ solo waaye li tax toujours may insister ci point 3 bi c'est parce que boobu article daf ñu doyoon constitution ni àdduna bi amee réew mu mag mu ñu respecté ci wàllu démocratie te doo fa fekk constitution bu ñu bind comme Grande-Bretagne noonu nga mënoon a am Sénégal am constitution boo xam ne benn article lay doon muy article 3 boobu ndax lépp mu ngi ci article boobu la souveraineté appartient au peuple qui l'exerce par l'intermédiaire de ses représentant ou directement par voie référendaire aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de cette souveraineté sañ-sañ bi askan wi moo ko moom te moo koy dénkaane wala mu doxalal ko boppam ci référendum bi ñuy wax oui ou waaye benn pàcc ci réew mi walla benn doomu aadama ci réew mi mënuta aakimoo sañ-sañ boobu lépp a ngi ci biir euh, ci la baatu màndaa juddoo loolu ñu tuddee mandat maanaam ci sañ-sañu askan wi la juddoo ngir lan ngir askan wi su mënoon bis bu ne mu dajee di lijjanti lépp luy yitteem du ko dénk kenn nit ñi yor seeni kër en général dañ koy mën a yoral seen bopp ba duñ ko dénkaane lañu cay dénkaane di jox nit mu leen koy liggéeyal mooy lañ te mënul yoral seen bopp parce que xëy na dañuy liggéey feneen wala amuñu jot ba mën ko yoral seen bopp mais lu ñu mën a yoral seen bopp dañ ko yoral seen bopp duñ ko dénk délégué de quartier ba parce que ca biir kër ga mais bu dee koñ rek déjà mënuñu daje bis bu ne di waxtaane liñ bokk ba tax ñuy wut délégué de quartier ngay daje ci ab dëkk ñuy wut maire ndax mënuñoo daje bis bu ne di waxtaane lañ bokk réew di wut ay kuréel lii ñu di ko tuddee président de la république lii ñu di ko tuddee parlement ci diggante bi muy am li ñuy tuddee gouvernement gouvernement ba bokk ci exécutif bi parlement bi bokk ci li nga xam ne moom la ñuy tuddee maanaam parlement bi di législatif maanaam foofu la ñuy dogalee gouvernement bi di doxal loolu yépp daf koy def ci turu ñi ko jox mandat mooy ñi nga xam ne ñoo ko dénk lenn ci seen sañ-sañ kon ka la dénk sañ-sañam kooku mooy sa njaatige yow yaay surgaam mu mel ne dañu tàmm képp koo xam ne dañ laa dénk sañ-sañ yow nga def sa bopp njaatige def ñi la ko dénk surga te souvent ñu nangu ko nag ñun li ñuy tuddee fal askan wi mooy réyabilité la souveraineté du peuple du leneen ndax li nit ñi miin mooy nit jóg taxawal li ñuy tuddee parti ne ñëw leen fal ma man nit ñi topp ci daw ci wax ci def ci ba fal la yow nga toog ci kaw askan wi def sa bopp seen njaatige def leen surga di leen mosal nag ñi nga ci bëgg a mosal loolu nag Euh, ñépp xam nañ ni askan yàgg na ko dund Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dafa am nu mu ko nu mu ko tënkee dafa ni politique dafa mel ne picc yu daje te xiif nee na picc bu naaw rek doo mën a dem ndax li nga xiif ndax fa nu naaw jëm benn saaku dugub la bu ne ca kaw ñu ne nañ dajale dunq yi seet benn picc ñu jox ko ne ko boo naawee ba ci saako bi danga koy bët pepp mi ruus ñu bokk lekk ku ne joxe sa dunq ku ne joxe sa dunq ku ne joxe sa dunq ba dooleel picc mi picc mi dem ba ci saako bi au lieu mu bëtt ko mu toog ci kaw di lekkal boppam waaw mu ni wallaay ndeysaan tabaarkalla tabaarkalla mu ni loolu buñ la ko defee benn yoon def la ko ñaar yoon def la ko ñett yoon beneen yoon ku la laaj dunq nga bañ ndax dangay ngay ñàkk dunq ñàkk pepp ah nga téye sa dunq di pët pëti loo for jël loolu moo daan am ah, mu mel ne keroog daje nañ fi mu am lu ñu wax lu xaw a jëm ci loolu dañ ko waxoon nag ci wolof ñu am nuñ ko duppee ci tubaab mu am ñu bari nuñ ko déggee ndax jox naa ci ay woote ñu ne ah yow dangaa wax ni président mosul am ci dëkk bi ma ni damay leeral lan mooy fal ak lu tax fal dama leen di laaj lu ci dul dëgg rek ngeen mu wax ma ki fi njëkk am titre président bi tubaab yi dee dem la ñëw te jamono boobu ñun ñëpp indépendance lañ doon wut maanaam tant que tubaab yaa ngi fi woon ñun amuñu suñu président bu ñuy wax ab sénégalais président boobu daf toog ab diir ba bis muy dem. fekk diggante bi am na fi article 35 bu ñu def mooy président bi su demee premier ministre koy remplacer mu am ku fi nekk président ñaari at te kenn falu ko am déet maanaam Abdou Diouf bi muy nekk président kenn falu ko maanaam Senghor a doon dem moo tax mu nekk président loolu laa wax jam ñépp xam nañ ni jamono bi Ablaye Wade di nekk président de la République entre ñaari tour yooyu xam ban kuréel moo fi nekkoon fal la woon mais fal boobu front pour l'alternance la woon maanaam folli abdu Diouf loolu lañ doon wax man mii maa créé woon jeunesse pour l'alternance ñu ànd ko ak ñeneen di wut alternance maanaam ki fi ne na fi jóg na dem lañ daan wax am déet na dem na dem a dem am déet na dem moo indi Ablaye Wade bii Macky Sall di ñëw dafa fekk nit ñi ne bëggatuñu ñi ëpp bokk bëggatuñu maître Wade am troisième mandat maanaam kon boo xoolee dañuy folli rek nit di toog maanaam yaa fi sës di taxafal te nag am réew li nga xam ne moo doon saluam mooy bu ñuy demati ci élection ñu bañ a jiital na dem mais keroog dama leen caa tegal na leen président Senghor def na fi lu baax ma teg ci ne président Abdou Diouf def na fi lu baax teg ci ne président Ablaye waat def na fi lu baax teg fi ne président Macky Sall def na fi lu baax waaye dañoo bëgg def lu ko gën kon jamonoy na dem moo war a jeex du tee nit dem nag waaye maanaam dem gi taxu noo jóg na deñ it bëgg nañ ko mooy bu amee lu baaxul loola deñ bu amul ku baax bu amee ku baaxul mu dem bu amee lu baaxul mu deñ waaye li ñu gën bëgg nag te def ko suñu waxin mooy suñuy dem di wax ak di wër ak di campagne ak di waxtaan ak nit ñi dañuy wut li gën ki lay wax li gën nag dàqul li baax dafa ne ay la yewén xëy na lii baax na waaye ñu dañoo bëgg lu gën maanaam kiy def lu baax sax war naa bëgg lu gën ndax ñépp xam nañ ni kenn ku nekk boo amee doom sax boo sañoon sa doom gën la tekkiwul ne baaxu nit dafa war ci àdduna di wut a jëm kanam di wut lu améliorer li mu doon def mooy gën gën boobu nag ci cadre rafetal ñun ca loolu lañ jëm xam nga gën boobu mooy lan mooy fexe ba di fal fexe ba bu ñuy demati élection ñuy wut fal fal mooy lan mooy faale askan wi faale askan wi mooy lan mooy xam ay yitteem leeral yitte yi ba ñépp dégg ko wut ñoo xam ne dañuy fas yéene buñ leen fi tegee ñuy jaamu yitte yooyu li ñu bëgg c'est une révolution boo tuddee baatu révolution nag nit ñi dañuy def ne affaire violence la déedéet koo xam ne fasatul yéene maanaam di xalaat rek lu jëm ci violence ak di xalaat rek lu jëm ci werante mais du ko wax du ko jëf mais révolution du loolu la révolution boroom xam-xam bi nee na ce n'est pas un coup d'État orchestré au sommet par une minorité d'activistes révolutionnaires mais nee na c'est un mouvement qui mais en branle d'énormes masses humaines qui prennent en charge leur propre destin tey ñii fi toog yaakaar fi ay saaku ceeb taxu leen fee ñëw yaakaar fi leneen taxu leen fee ñëw dañoo bëgg liy am ñu gis ci seen bopp ñépp xam nañu ne waa Sénégal tayeluñu waa Sénégal nayuñu waa Sénégal ragaluñu tayeluñu parce que lu leen ñor lu ne nga gis leen ci nay ñu parce que bëri na luy xew lu leen intéressé rawatina ay événement religieux ak yeneen yoo xam ne dañuy ñàkk sax di wuti di ci def ragaluñu it ngir depuis jamono yi nga xam ne ay robinet mbedd dafay amoon dañu doon gis suñu wayjur yi ku leen bëgg xañ si ndox bu ñu yóbbu seen kër ñu takk seen digg xeex dafa fekk dañoo bëgg a ah, seen li ñuy def muy Pastef li ñu yor muy pas li ñu yor muy kàttan li ñu yor muy courage ñu jëmale ko ci lu ko jar le courage nag du jël ay jaasi di xeex le courage c'est ce que font ces femmes maanaam xëy suba teel fajar sa kër dara ne ko fa nga jóg topp tàngaay wi dugg ci marché yi nekk ci mbedd yi yore sa leket di wut loo xamante ne di nga ko mën a indil sa njaboot ce ça le courage et tu le fais chaque jour benn benn boroom xam-xam daana wax ni amoon na ñenn ñoo xam ne xëy na dañ daan jóg di taal seen bopp di dem di xeex di taal seen bopp mu ne peut-être ñooñu mën nañ ne ils sont mais nee na ki gën a courageux mooy ki nga xam ne toog na mu jaral ko mu affronter les difficultés de la vie ki nga xam ne jaral na ko non pas mu sacrifier wu mais mu survivre pour permettre à sa famille pour permettre à sa ville pour permettre à pays de survivre moom ci boppam muy def li nga xam ne dafa mel ne le travail ingrat ngay sëy suba ba ngoon te doo gis njariñ bi te du tee le lendemain nga xëyaat loolu la ñuy ëpp ñu toog fii loolu lañu nekk loolu nag aucun leader aucun leader naa la droit de li l'ignorer tey boo ñëwee ñu fal la jox la cër jox la jumtukaay ne la booy jaar ci mbedd mi ñëpp dañuy xaar lu ñu am am am soxla dañuy xaar ñooñu am na loo leen yoreel te pourtant kenn ku nekk ci ñoom dafa am yitte boppam am lu ko ñor loo xamante ni bëgg na ko saafara waaye boo waree jàll te mu bëgg a jéggi nga war a jàll moom du jéggi te jàlloo lu tax loolu ndax dañoo jàpp ne ci yow li ngay dox yitte ma ngi ci yitte ñeneen na ci nga yore yitte ñëpp loolu lañ jàpp te xëy na sax sa yitte bopp rek ngay dox wala sa yitte mbokk waaye dañu ko yaakaar ndax dañ laa teg place boo xam ne ñëpp a ko moom mais loolu bu la ko ay nit defalee mais yow yaay seen surga nekkoo seen njaatige ñoom ñooy sa njaatige te ñun kon li ñu bëgg mooy askan wi demal ba boppam nag daan ne position njaatige boobu la ñuy réclamer loolu mooy fal askan wi. maanaam il faut ñu dem ba ci quartier yi ci kër yi ci koñ yi ci mbedd yi ci liggéeyukaay yi ci marché yi ci stade yi ci bërëb yi nga xam ne yëpp nit ñi ña ngi fay yeewoo wala ñu fay fréquenter wala ñu fay liggéeyee ñu fexe di ko dugal ci seen bopp ba loolu nekk ci seen bopp ba nit ñi xam ne li ñu leen di woo léegi dootul ñëw dooleel sàmba Demba wala Ayda mais li ñu leen di woo léegi mooy ñu dooleel seen bopp mooy ñu leen di woo ci ay waxtaan yoo xam ne dañ leen di yee. ñu yeewu di yeewi comme li ñeneen ñu daan wax ñuy xam di xamle comme li ñeneen ñi daan wax ñuy gëm di yokk ngëmu ñeneen pour que ce peuple cette nation pour que ces masses humaines innombrables yi fi nekk une fois que ñu am conscience ñoom ci seen bopp saa yu ñu xëyee ñu xam li leen ñor te ci taxaw nit ñi ku dikk ci ñoom bëgg leen a jariñoo bëgg leen a nax ñu lànk ko waxuma nag lank rond lank carré laa wax waaw lank carré mais waxuma lank rond waaw parce que lank rond moom day glissé waaw te li mu am ci senegal loolu daa bëri lànk lankulu mooy loolu mooy lànk lank lankulu euh, vraiment li nu bëgg rek mooy ngeen xam ne ñoo far ñoo far boobu nag ëpp naa xep gis nga président Obama sax bi mu ñëw fii ay conseil benn baat rek lañ ko waxloo ci wolof mooy ñoo far askan wi la ñu bëgg ñu far xam nga bu njëkk dañ doon consi dañ doon fexe ba mu mel ni ay parti politique ñooy xëccoo askan wi gisuñu ci seen bopp ñu toog fee mel ne ñuy seetaan mu mel ni mbir mi entre ñoo ñu di xëccoo la te nag du loolu xam nga tey du làmb jooy toog di ko seetaan xam nga tey booy seetaan làmb loo bëgg-bëgg mbër mi bu ñu tojee bëtam sa bët du nàcc am de mais kon nga xam ne seetaan rek la loo ko bëgg-bëgg bu ñu tojee bëtam sa bët du nàcc waaye lii dangay jàpp ne mbir mi yow la sëñ Moustapha Sy da daan wax ni tere tere mu te bàyyi mu gis mais nee na day fekk bu gisee du la woon day fekk bu gisee du la woon doo yor sa doom mu ne ci balkon bi troisième étage nga naan ko moytul balkon bi da ngay daanu. dégluwu la nga naan ko waa baax na tere mu te bàyyi mu gis mais bu daanoo ku ko yëg du moom dong de dina ko yëg waaye di ko yëg kon tey jii ñun li ñu bëgg mooy askan wi bañ a nekk ci position wu seetaan parce que yëf bi yëfam la loolu la ñu bëgg mu nangu ko parce que moo ko moom dañu bëgg pouvoir bi dem ci peuple bi parce que moo ko moom dañu bëgg lépp loo xam ne dafa concerner jigéen ñi jigéen ñi am organisation boo xam ne ñoo koy gérer seen bopp lu concerne jeunes yi jeunes yi am organisation bu tax ñoo koy gérer seen bopp mag ñi noonu cadre yi noonu ñépp noonu te bis bu peuple bi organisé woon noonu day falu falu bi mooy donte dina jël ay benn ñaar ñett teg leen ci ay poste mais ñam fa teg du ñu ñeme benn yoon du ñu xalaat benn yoon di jéem a jëfe lu méngoowul ak intérêt askan woowu loolu mooy fal askan wi nekkul leneen nag euh, dama bëgg ñëpp dal ndax ba ñu fi defee ubbite bi ak léegi coow li daa bari si dëkk bi nit ñi jël micro yi dem ci télé yi rajo yi di wax rek ñun danoo waxul werante wunu xuloo wunu xaxarante wunu man dama ko du sax déglu ba benn yoon ba yenn saa yi nit ñëw sa bëgg na ma dégg nga diw ma ne ko dégguma ko mu ba ma ko nettali ma ne ko bu ma ko nettali jaru ko cest à bu ma sañoon sama nopp bi duma ma ci déggati lu dul lu baax mais yenn saa yi nit yëgal la ne am na kuy wax loo xam ne du wax bu baax mais buñ ko topp parce que boo ko toppul te di ko ñaanal jàmm di ko ñaanal maanaam mu leer ci boppam ba mu xam ne li la tax a jóg du yàq li la tax a jóg defar la noonu du tuuti te kuy waddu jotle woo doo ca booti gàmb moo tax su ma sañoon ñëpp dal ñun jàmm lañu ñu yéene ñëpp jàmm lañu ñu bëggal ñëpp parce que su ñuy wax askan wi ñëpp a ci bokk ñi xam ne bokk nañ ci ak ñi xamul ne bokk nañ ci ñëpp a ci bokk ñun dañoo bëgg fal askan wi te wax naa leen keroog ne leen faw fal askan wi fal askan wi ba faw loolu dara la ci nit mënul. parce que da ngaa mënta dem ci ab doomu aadama fekk ko mu nekk ci difficulté nekk ci ay jafe-jafe dëkk jafe ko solo jafe ko lekk jafe ko naan jafe ko faju jafe ko jàngal doomam jafe ko am sécurité jafe ko yow nga ñëw fekk ko bëgg ko jàppale ci loolu jàppook moom ci loolu pour loolu yaatu ci moom nga bëgg ko jàppale ci loolu nit bëgg la cee génne maintenant nag li tax may ñaan ñii ma àndal ñépp ak yéen ñu am indulgence te am patience su comprendre ñi comprendre gul mooy dangeen xam ne lu mu yàgg-yàgg bët dina set lu mu yàgg-yàgg bët dina set bu nit ki dalee sa kaw nañ la dóor ak nañ la gaañ ak nañ la rey du tee bët dina set dama fi mas a expliquer nii dafa am buuru guddi c'est le roi de la nuit ma ne buuru guddi moom lëndëm lay dundee xam nga kiy dundee lëndëm du bëgg bët set looloo waral moom dangay faral di gis muy wax ne nañu rey ginaar yi mais loolu erreur la ndax ce n'est pas que ginaar yi ñu ngi sab moo tax bët di set c'est parce que bët mooy waaj set moo tax ginaar yi di sab kon rey leen amul njariñ nañu fexe ñun ñëpp bañ leer parce que leer kenn waru ko bañ c'est nañu fexe ñun ñëpp di waxtaan di gindi konte di seet naka la ñuy fexee ba askan wi ngeen doon askan wi ñu bàyyi ci kër yi askan wi ñu bàyyi ci mbedd yi wi ñu bàyyi ci koñ yi nañu fexe ba askan woowu ci boppam mais ñu fexe ñun ñëpp kenn ku ci nekk li nga am ci xam-xam ak li nga am ci xereñ nga utiliser ko pour jàppale leen ba ca des nag mooy dafa am soxna suñ daan woowee kenn bëggul mu am genn góor gu ko laaj ne ko waaw soxna si lu tax ñu di la woowee kenn bëggul mu ne ko danga maa waroon laaj lu tax kenn bëgguma mu laaj ko ko mu ne ko waaw kenn bëgguma ndax ñépp dañoo bëggoon ma doon taq ndeer fu ñu jëm yóbbaale ma te may jëmm ne ñoom jëmm su ngeen àndee nuroowul ak taq ndeer taq ndeer su ngeen àndee du la ni sonn na du la ni xiif naa du la ni fi ma jëmale neexuma te yéen du ngeen taq ndeer ay jëmm ngeen askan wi ay jëmm lañu kenn ku nekk daf leen war a respecté comme jëmm yi ñu doon yàlla moo ne wala xadd karam naa bani aadama man maa teral doomu aadama li war kon ku nekk mooy bu gisee doomu aadama lu mu mën ci teral ko mu def ko loolu moo tax fal askan wi jóg ensemble ak yéen danañu joxante loxo lii ab tàmbali la euh, carte yi nag ñun nag sunu carte moom wun ko dañ koy jaay wuñ ko de dañ koy jaay nit ñi dañoo miin si ay affaire parti politique mooy ñu ni dañuy placer ay carte ñun placer wuñ dañuy jaay xam man du ma guro mais bu ma demee ci tànk wala tudd bu ñu ma joxee guro damay jël ndax dañ koy joxe mais buñ ko doon jaay du ma jël parce que duma ko lekk noonu la mel amoon na atam ci 1992 benn parti bu defoon placement de carte daal di annoncé publiquement ne am na joxe na cent mille cartes 93 ñu dem ci élection yi mu am 20 000 voix te bu carte yi kay ñu bokk la waxuma la électeur te normalement électeurs yi ñoo war a ëpp ñi bokk 400 000 mille la lañu placé am 20 000 voix loolu na waruñoo dal dañu bëgg ñi nga xam ne membre lañu ñu am carte de membre carte de membre non seulement da nga koy jënd mais da ngay cotiser di ci teg. ngir lan ngir nga am sañ-sañu joxe sa kàddu ngir nga sañ am sañ-sañu boo waree lànk nga lànk ngir nga am sañ-sañu bu ñuy tànn nga ni tànn leen ma ngir nga am sañ-sañu bu ñu tànnee diw nga ni diw baaxul mais mënuloo yow jëndoo carte doo cotiser maanaam pour mbir mi dox ba pare te bu ñu waree tànn ci biir ñiy fexe pour mu dox yow nga seet xëy na ñenn ci ña nga xam ne ñooy tax mu gën a dox nga jéem ñëw utiliser sa doole pour daane leen loolu kenn du ko nangu on peut avoir des sympathisants. Nous aurons certainement des sympathisants qui n'auront pas les mêmes devoirs que les membres. ñooñu ils auront des droits le droit à l'information les les sympathisants on a le devoir de les informer ils ont le droit de recevoir des information sur mouvement bi fu mu toll mais ñooñu ñoo xam ne la mënoo leen sas dara maanaam mën nañu booy meeting nga yëgaleen ñu ñëw ngay def réunion sax yenn saa nga nga leen ñu ñëw ngay campagne sax ñoom ñu bokk ci parce que période yooyu moo leen intéressé mais amuñu obligation pour di ñëw di teew wala bañ a teew bu leen neexee ñu teew bu leen neexee duñ teew loolu sympathisant la mais membre adhérent mooy koo xam ne dafa bokk te mooy doxal mbir mi te nit ku nekk ci àdduna looy def lu ne dangaa war a toog nga xalaat nga ne waaw bu ñëpp defoon ne man nag maanaam kon boo jëndee ñëpp def na yow mu baax boo cotisé ñëpp def na yow mu baax mais bu fekkee ne jëndoo cotisé woo ñëpp def na yow du dem te li gën mooy ñu koy def ba suñu amee suñu kër ñu koy yore suñu bopp na ma leen ko waxee woon demal leen woon kër gi bu ñu koy ubbi dara du fi ne lu fi dugg askan wi ko fi dugal siège yi fi am nit ñi ñoo ko fi indi leneen lu fiy dugg nit ñee ko fi indi bu ko defee ñi ko fi indi ko moom waa muy askan wi bu ko defee ñu koy mën a jariñoo ci anam yoo xam ne luy yokk askan wi rek la ñuy dox bu boobaa ñu gis ne am na maanaam jant bu jóg ci Sénégal jant boobu nag mooy fal askan wi bu ko defee bu askan wi faloo ñu commencé di toppatoo ay yitteem bu ko defee ñuy lijjanti lekk naan solu dëkk di lijjanti wér ak wérle di lijjanti li nga xamante ni mooy am njàng moo mooy am information moom mooy tàggat moom mooy yar di lijjanti li nga xam ne mooy kiiraay di ligganti li nga xam ne mooy justice ci biir Sénégal e ñu ngi réitérer le fait que ce mouvement jógul contre personne mais sa mouvement dafa jóg pour la peuple kon képp koo xamante ni yow dem nga ba retrouver wu face au mouvement c'est que yow yaa nekk face au peuple képp koo xam ne yaa ngi jàppale askan wi yéene ko lu baax bëggal ko lu baax ñu ak yow far ak nu nu faree nag mais képp koo xamante ne yaa ngi bëgg a gàllankoor askan wi te di ko néewal doore yow yaa jàkkaarloog askan wi yaa jàkkaarloog ñun bu ñu sañoon nag ñépp yeewu bu ñu sañoon ñépp gëm bu ñu sañoon ñépp nekk ci lu baax ba permettre vraiment askan wi mu mën a jot ci li nga xam ne moom moo ko moom muy sañ-sañam mooy réhabiliter la souveraineté du peuple jërëjëf